tey euh, booru 14 heures sapeur pompier yi dañ leen alerter si benn daay bu amoon euh, quartier euh, zone de captage derrière EMG atelier mécanicien la woon donc bu intéressé woon ay oto mais quatre oto rek ñoo tax mais ak moyen sapeur pompier yi pare pare woon nañ pour fay feu bi donc sapeur pompier yi arrêté nañ propagation feu bi ba feu bi àggul si yeneen oto yi. donc euh, trente minutes lañ def pour fay lakk bi parce que indi nañu juróom ñett oto dont ñeenti oto yoo xam ni ay spécialité uniquement pour fay lakk la donc les moyens étaient suffisants pour éteindre le feu. mënuñu prononcé wu si loolu pour le moment donc am na enquête bu ñuy ubbi le policiers ñu ngi sur place. à l'issue ils vont ils vont déterminer l'origine du feu ci matériel euh, ñeent oto ñeent oto ñoo lax donc euh, damay xelal euh, bépp propriétaire garage ñu ut ay moyens de secours maanaam ay extincteur ak après hivernage bi tamit ñu procéder pour dindi ñax bu nekk ci garage désherbage